man li ma li xam naa li ma xanaa xanaa bu la neexoon waaye man bu ma xam naa ne mën naa nekk ma doon ko ñaan ñaan ñaan. أحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا ما به ظننحني النفاق صلاة من آمنني من خوف على النبي منتقى للسيف وآله وصحبه مع السلام كما أتى بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قال له التفضيل والآل والصحب مع التسليم كما به كان بالتعليم هم الشقاوة تقاوة نحبني يا علي وجل فؤادي مدينة علوم شرات من فيه أجل وأزال على وسيدي صاحب الإزال maa man si géej gi fopp maa man si jéeri ji fopp maaman yow mal xiyaam ba booba ba booba xam nga ni mu mane si géej gi moom daa leer naa ñi xam nga ni mu mane si jéeri ji daa leer naa ñi yow mal xiyaam dañ fa gugul moo tax weddikat yi dañuy mën a weddi moo tax mu ne ba booba ba booba daan na wax tamit naan waaw ku may tudd yu tuddub sëriñam benn xamuma wala xamutub sëriñam waaye buñ bokkoon si barab yenn fa ba ngoon jot ab sëriñam dina xam ne duma moroomam وجهت مالي قادا نفر بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو السجاع في محاومي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي أبيضا تنقاد لي أغراضي nabiyuna al muxtaaru xayrul anbiyaa jigéen ñi góor bu leen fekk ngeen toog mu bëgg leen a jox loxo bakk leen seen loxo bu leen dama koo bañ a gàcc yàlla mos leen yàlla mi leen bind défere leen ndax dégg ngeen li bu leen roy bu leen roy seeni aada ñoom àdduna lan am buñ faatoo dem sa waara ñun nag àllaaxira lan am lu am si àdduna dañ ko war a sant si see mën muñ ko dégg ngeen ab jullit la ko yàlla tagge doonu fi ab yéefar te mooy yàlla du si tagg benn jullit kër bu yàlla du si tagg benn jullit waaw alal ju bari yàlla du si tagg benn jullit ndax loolu doo si am rek boo geesoo gis yéefar bu ko am ab saay saay xam ne lu mënta am ngërëmul yàlla la si rek kon nan saa ko yàlla loolu nga xam ne du ko joxub yéefar du ko joxub saay saay dégg nga li ma wax laa waaye lépp loo xam ne boo ko amee boo geesoo gis ku gëmul yàlla am ko du dara du dara du dara والآل وساب وسلم أبدا وبشر النبي من تربدا سل بتكريمك يا سوي حتى الرفيع سمعك ومهدي وآله مع ثياب القيادة بشرت بيدك المبشرة يا نبي